Euh, sëñ bi maa lay nuyu bu baax a baax di la ziar waaye tamit di la masaw bu baax a baax sa wóolëre bi nga xamante ni yàgg ngeen a ànd muy Aziz ma la koy masaw waat baax te di la ko jaale ah ñu sigindiwaale si luñ bokk ba dëgg yàlla Aziz man déewam bi attanuma ko quoi parce que mujjee kàddoom bu mujj ku rey nit ñu rey la loolu la fi wax defu fi dara luñ koy xeebee mais nag képp ku def lii na la leer ni yoon mi ngi si kawam parce que duñ ko bàyyi parce que mënuñu ko bàyyi fekk nit ki ci appartement am rey ko ba mu sedd tëj appartement bi muur ko dem sa yoon xale bu ndaw koo xamante ni dañoo gis rek bëggal ñu boppam ñuy toog mooy bu ñuy ataaya moom la ñuy yónni lu ñuy def moom la ñuy yónni yëgul tinir nga rey ko ci anam bu ñaaw mais nag ñi ngi ñaan ñëpp ñu si war a taxaw nañ ci taxaw parce que ñun instant yi dañoo pett sax suñuy moom bu ñu waxee bu nu yàlla dañuy wax loo xam ne après dañuy xeeb lépp daal lu ci nguur mën nañ ci dimbale parce que ñun instant yi nii jaaxle nañ trop wax dëgg yàlla. alors nga ki nga xamante ne moom moo di Aziz. ñoo nekk dimanche ba 19h. ci laa ñibbi guddi gi ma woo ko dafa feebaroon war a samp biteel ma woo ko mu ne samp na biteel ba pare ma ne ko waa baax na suba dinañ déggante lundi dégguma ko mardi démb laa koy woo toute la journée di ko message jotuma ko mhm. nii toll nii. wallaay ko doon woo téléphone bi daa fay wala doon sonné jëloo. dafa fay message whatsapp demul te dimanche ñoo nekk ba 19h. Mhm. te nee nañ commencé na yàqu xanaa kon man dama génn rek ñëw ñoom ñu defaral ko. Mhm. mais nag yàlla baax na nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla mais métti nañu de metti nañ trop dëgg yàlla. alors kan nga jàpp ni que moom moo def jëf ju mel nii parce que tamit euh, rey ba rey koo xamante ni si euh, Sénégal yëpp ko xam su du nekkul koo xamante ni ku ñu présenté ti la waaye tamit ñu boole koo ki nga xamante ni moom la daan àndal euh, dafa amoon ay problème wala ay antécédent ak kenn koo xamante ni si xam ngeen ko. non non ñun Pikine lañu dëkk amuñu fenn sens interdit Aziz amul fi xaar ma yàlla kenn jotewul ak kenn këram la toog. xanaa kay def ko lu bon ak koo xam ne da ngaa bëgg a jóg fexeel nit ki loolu lañ fi gis mais Aziz amul kenn ku muy jotal bu génnee Baye Fall bu géew jóg doo ko gis bu génnee ko ñoom ñëpp la amee jàmm ñëpp lay kaf ñëpp lay ree man de lii laa ko xamal te maa ngi ñoo ñooy ànd depuis 2007 ba léegi ñooy ànd wallaahi Aziz dimanche ñoo nekk ba 19 heures doo xam quoi nga yeewu di moom déggante wuñu parce que woowu ko mais mardi démb dama xëy woo ko pour Aziz foo nekk maa ngi ñëw gaa foofu jotuma ko ma bàyyil ko message jotuma ko ba si guddi gi nag lañu topp action lañ commencé di wër après si la affaire yi nii ba léegi sitawal fii laa jóge léegi dalal jàmm lañ jóge léegi mais après mujjee ambulance bi jël na ko yóbbu na ko sitawoo quoi mais nee nañ instant il ñu def autopsie bi si loolu lañ nekk nii mais ñu ngi leen di ñaanal lépp lu ci am du leen ump alors est-ce que tamit li nga xamante ni moom moo di jëyee ji bi nga ko déggee déplacé wu nga dem foofu su dee dem nga tamit naka nga fekkeel la nga xamante ni moom moo fa am dégg démb dama bougé woon nekkoon ci wàccaay màggal bi sa ay affaire laxasaay ak yooyu bi ma bi ma génnee aw ma connexion bi ma ñëwee sama gàlle ay vélo vingt deux heures si laa yëg action bi maag sama gars yi ñu ciy wax mais nangu ñoo wax lu leer parce que xam na ni moment guddi na après ba mu demee ba sës nag si lañ nit ñi carrément Aziz mook booy bi yëpp lañ mujjee ànd ma woo Samba Nguer ma ne ko ndax dem nga ko ñoom Aziz mu ne ma dem naa fa suba ba léegi xamuñu fa Aziz mais boobu xam nañ mais ñun la ñuy bañ a jox kaa bi léegi booy bi lañ ñu expliqué ba ñu xam ne kër ga jàmm amu fi ñu doon ñu wax Aziz dee na mais mënuñu si dara mais ki def lii Aziz xulawul ak moom xeexul ak moom ndax amul kenn ku muy xuloo ak ku muy xeex wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla métti na trop nag mais ñi ngi jégalu ci kàddu yi. alors li nga xamante moom moo di bi dafa bari euh, Sénégal saa yoo xëyee nga dégg ku ñu rey moo xam muy xale wala mu mag wala mu nekk mag mu doon loo xamante lu ñaaw la te tamit euh, image la boo xamante day yàq deru Sénégal ban message ngay sànni pour que loolu noonu ñu mën ko fee jëlee même bu ñu ko fi jëlul sax mu wàññeeku. ah lenn loolu kay dafa leer ñi ci war a wax nañ ci wax ñi ci war a taxaw après doo xam mais daal ñi ngi ñaan lépp lu ci waaye war a def ak ñi ko war a def nañ ko def ci anam boo xamante ne ñun dinañu arranger parce que lii àttanatuñ ko quoi dee yi bari na trop ba dëgg yàlla merci beaucoup. ma sawwaat bu baax a baax te di la ko jaalewaat di ñaan yàlla.

Thank you.